bismillahi rahmani rahim allahuma salli ala seydina muhammadin wa salim mi ngi ciy teg allahuma salli ala seydina muhammadin wa salim ñu ngi nuyoo di indi nuyoo euh, ak ziara président de la république euh, Macky Sall ministre bi nee na mi ngi nuyoo waaye di indi nag nuyoo président de la république monsieur Macky Sall ñu maa ngi ànd ak euh, le ministre bi nga xamante ne moo yor wàllu ndox mi nee na moom ministre intérieur mi ngi ànd ak ministre bi nga xam ne moo yor wàllu ndox mi ak li nga xamante ne mooy assainissement ak li nga xam ne bii mooy assainissement. muy Serigne Mbaye Thiam. muy monsieur Serigne Mbaye Thiam. di ànd tamit ak euh, ministre bi yor wallu xëy mi. bi nga xam ne bii xëy muy euh, monsieur ndam Diop. muy monsieur Dame Diop. ànd tamit ak euh, gouverneur wu Ndiarème. ànd na tamit ak gouverneur bu Ndiarème. ak préfet wu Mbacké. ak préfet sous préfet wu Ndam. ak sous préfet bu Ndam. ànd tamit ak le ministre conseiller. Euh, Serigne Cheikh Abdoulahat Mbacké. nee na ànd it ak le ministre conseiller Serigne Cheikh Abdoulahat Mbacké. ak euh, le directeur général de la SOGIP Galoba. nee na ànd ak le directeur général de la SOGIP Galoba. ak au conseil ak député yi ñu fi fekk. ak au conseil madame Mbaye ak député yi ak Baye Mor conseil économique social. ñu ñëw euh, maire dëkk bi di Abdou Lahad Serigne Abdou Lahad Ka teeruñu. nee na ñu ñëw nag ci dëkk bi Serigne Abdou Lahad Ka di maire dëkk bi teeru leen. président de la république euh, son excellence Macky daf ñu yabal tey. nee na président de la république son excellence Macky daf leen yabal tey. ngir ñu ñëw. ngir ñu ñëw. Massawu. Massawu. jaaleel ko Serigne bi. jaaleel ko Serigne Mountakha. ginnaaw bi nga xamante ni jàmbaar ju mag jooju di Serigne Cheikh Jëmb Fall bàyyee na fi. ginnaaw bi nga xamee ni jàmbaar ju mag jooju di Serigne Cheikh Jëmb Fall xalifa général de Baye Fall jóge na fi. ñoo xam ni li nga ni mu dundee népp da koo tegoon ci li Cheikh Ibra. nga xam ne ni mu dunde yëpp da ko tegoon ci Cheikh Ibra Serigne euh, Cheikh Ibra Fall li nga xamante ni moom la doon dundee nee na nga xam ne maam Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridina moom la daan dundee nga xamante ni lépp lépp lépp euh, tudd baatu la ilaha illallah la nga xam ne lépp lépp tudd baatu laa ilaha illallah la di doxee ndigal di doxee ndigal ak di liggéey ak liggéey lépp jëmale ko ci sëriñ bi lépp nag jëmale ko ci sëriñ bi loolu nag moo tax nee na loolu nag moo tax. bi xew-xew bi amee. bi nga xamee ni bii xew-xew bi am na. président de la république yabal ñu. nee na président de la république Macky Sall yabal leen. ngir ñu ñëw dal di koy jottali jottali sëriñ bi njaalam. nee na ngir ñu ñëw jottali sëriñ bi am njaalam. te dina ñëwal boppam it incha allah président boppam moom Macky Sall dina ñëwal boppam. di masaw bu baax a baax. di masaw nag bu baax a baax. loolu nga xamante ni mooy xew bi. nee na loolu nga xam ne mooy xew-xew bi. ñaareelu euh, poñ bi nga xamante ni moo taxit euh, président yónni ñu. nee na ñaareelu pàcc bi nga xam ne moo taxit président yónni leen. ndox mi fan yii ñu nee ndox mi nag fan yii ñu weesu suñu borom dafee wàccee lu xaw a takku suñu boroom dafee wàccee ndox mu xaw a takku nga xamante ni am na njeexital bu mu def ci euh, dëkk bi nga xam am na njeexital bu mu def ci dëkk bi def ko tamit ci yeneen i gox ci réew mi nag yeneen i ci réew mi maa ngi fàttaliku euh, bi mu mujjee ñëw fii nee na mi ngi fàttaliku bi mujjee ñëw fii ci dina mat dina toll ci weer xañ na nee na xëy na dina toll ci weer maa ngi maa ngi doon wax sëriñ bi ni ko président mi ngi ñaanlu nee na mi ngi doon wax sëriñ bi di ko président dina ñaan lu ndax ndox mi xawoon naa takk ndax xaw ndox mi xawoon naa takk ñaan ngir suñu borom def nawetu barke ñaan ngir suñu borom def nawetu barke ndox mi wàcc nee ndox mi wàcc te jur jàmm jur jàmm sëriñ bi maa ngi fàttaliku mu ne ma naka jekk ci loolu lañ nekkoon sëriñ bi mu ne ko naka jekk ci loolu lañ nekkoon ñaan ndox mi ñëw na alhamdulilah ndox mi ñëw na alhamdulilahi rabbil bi mu ñëwee tamit bi mu ñëwee tamit am na ay euh, lu mu indil euh, yenn ci askan wi am na lu mu indil yenn ci askan wi muy ci ndakaaru muy ci ndakaaru muy ci Kaolack muy ci Kaolack muy ci Mbuur muy ci Mbuur muy fiit ci Touba yi yenn gox yi muy fiit nag ci Touba Mbakke mu doon loo xamante ni bi mu amee nee na mu doon loo xam ne bi mu amee. ba yegg ci yenn dayo yi. ba yegg ci yenn dayo yi. président dafa wax ni nañu déclenché plan Orsec. président Macky Sall dafa wax nañu déclenché plan Orsec. plan Orsec nag li muy wundu. ministre bi nee na plan Orsec nag li muy wundu. mooy saa yu ñu demee. mooy saa yu ñu demee. ba nii réew di doxee. ba nii réew di doxee. ak ay service am. ak ay service am. dafa aajo. dafa aajoo ñu gën koo baral ñu gën koo gën a taxawu askan wi gën a taxawu askan wi ci la ñu déclenché plan Orsec ci la ñu nag plan Orsec léegi euh, waaye ku ne gis na ci télé yi nee waaye kenn ku ne gis na ci télé yi ak ci rajo yi ak rajo yi ni xañ na nii ndox bëree léegi ci adduna ni xëy na ndox ni nii mu bëree léegi ci àdduna ak loraange bi muy indi ak loraange bi muy indi xaw na jéggi dayoo tuuti xaw na jéggi dayoo tuuti suñu mbokk yële ca Amérique suñu mbokk yële ca Amérique wala ci yeneen réew yi sax wala ci yeneen soo demee ci réew yi tugal yi soo demee ci réew tugal yi da ngay gis ni fan yi weesu da ngay weesu ndox mi am na yàq-yàq yu mu fa indi ndox mi am na yàqu-yàq yu mu fa indi waaye nag euh, su loolu amee waaye nag su loolu amee it ba plan Orsec ñu déclenché ko li ci war. li ci war nag. mooy indi ay saafara. mooy indi ay saafara. fii ci Touba nag. fii nag ci Touba Mbakke. président daf ñu jox ndigal. président Macky Sall dafa joxe ndigal. ni nañu xool nu ñu lijjantee mbir mi nu mu gën a gaawee. xool nu ñu lijjantee mbir mi nu mu gën a gaawee. rawatina. su fekkent ni màggal gi dafa jub su fekkente ni màggal gi dafa si. ñu seetlu ni. ñu seetlu ni. bassin bële ci Kër Ñang. bassin bële ci Kër Ñang. nga xam ni mooy jël ndox mi jógee Touba yëpp daanaka ci yenn station yi ci yenn station yi dañ koy jëlee kër ñang yóbbu ko daaru raxmaan dañ koy jëlee nag kër ñang yóbbu ko daaru raxmaan ñaari bassin yi yañ koy fañ koy sotti nee ñaari bassin yi fañ koy sotti diggante bi jàpp juróom-ñaari kilomètre genn wàll ba juróom ñett juróom-ñaari kilomètre genn wàll ba juróom-ñett loolu nag ndox mi nga xamante mooy ñëw ci bassin kër ñang ndox mi nga xam ne moo ñëw ci bassin kër ñang bassin bi dafa mel ni attanatu ko bañ ko saytoo bañu ba xool ko. ba xool ko président ni lépp lu ci war nañ ko def. président Macky ni lépp lu ci war nañ ko def. ñu woo euh, ONAS. ñu woo directeur ONAS. mu nga xamante ni mi ngi dépendre ci mi ngi ajoo ci euh, ministre bi Serigne bay Thiam. nga xam ni ONAS mi ngi dépendre ci ministre bi Serigne Mbaye Thiam. daal di woo euh, entrepreneur yi. daal di woon ak entrepreneur yi. nga xamante ni kii ñu jox liggéey bi tey muy Mamadou Gueye bu SVTP. nga xam ni kii ñu jox liggéey bi tey muy entrepreneur Mamadou Gueye SVT. su ma juumul mi ngi ci biir mbooloo mi. nee na su juumul mi ci biir mbooloo mi. moom la ñu jox liggéey bi. moom la ñu jox liggéey bi. bañ ko saytoo xool ko ba noppi. bañ ko saytoo xool ko ba noppi. xayma bi yegg ci ñenti milliards. xayma bi nag àgg na ci ñeenti milliards. waaye président démb. waaye président démb mu génne benn milliard mu génne benn milliard ñu jot koo jox entrepreneur bi ñu jot koo jox entrepreneur bi nga xamante ni liggéey bi moom day dal di tàmbali nga xam ne liggéey bi moom day daal di ñu war a def benn conduite ñu war a def nag benn conduite boo xam ne day jógee Kër Ñang boo xam ne bi day jógee Kër Ñang bu mag jëm dem Daaru Rahman bu mag jëm nag Daaru Rahman dolli ci li amoon dolli nag ci li amoon waaye bu màggal gi jàllee waaye su màggal gi jàllee liggéey bi day wéy liggéey bi day wéy conduite bi ñuy teg ci kaw nee na conduite bi ñuy teg ci kaw bu màggal gi jàllee dañuy gas suul màggal gi jàllee dañuy gas suul ko ba noppi dolli ci beneen conduite. ba noppi nag dolli ci beneen conduite. mu nekk ñeenti conduite. yu jugee mu nekk ñeenti conduite. yu jugee bassin Kër Ñang. yu jugee bassin Kër Ñang. dem ci Daaru Rahman. dem ci Daaru Rahman. léegi euh, loolu bokkul ak. nee na loolu nag bokk ak. liggéey bi nga xamante ni dinañ ko wéyal. liggéey bi nga xam ne dinañ ko wéyal. ci plan d' assainissement. ci plan d' assainissement. bu Touba euh, ministre bi nga xamante ni moo yor wàllu ndox mi nee na ministre bi nga xam ne moo yor wàllu ndox mi. mi ngi leeral tamit. mi ngi leeral tamit. am na yeneen pompe yu am doole. na yeneen pompe yu am doole. ndaxte fi ne boo xaymaa li nga xamante ni mooy pompe bassin Kër Ñang di dem Daaru Rahman. nee na boo xaymaa li nga xam ne moo jege bassin Kër Ñang dem Daaru Rahman. Euh, yegg na ci deux mille huit cent trente mètres cubes. nee na yegg na ci deux mille huit cent trente mètres cubes. yaakaar naa day doon ñaari junni. nee na yaakaar naa day doon ñaari junni. ak juróom-ñetti téeméer ak fanweer ak fanweer. mètre cube mètre cube. ci euh, waxtu wu ne. ci waxtu wu ne. waaye bu liggéey bi yembee. waaye bu liggéey bi yembee. ñaari junni dina ci dolliwaat ci saasi. dina ci dolliwaat ci saasi. loolu nag du bokk ak. loolu nag du bokk ak. Euh, plan d' assainissement wu Touba. bi nga bu Touba. bi nga xam ni ñaareelu phase bi. bi nga xam ne bi ñaareelu phase bi. dafay toll ci ñaar fukki. milliards ak ñett dafay ñett milliards ak ñett. juróomi milliards yi juróomi milliards yi dañuy gën a dëgëral li am a dëgëral li am fukki milliards yi ak juróom-ñaar fukki milliards yi ak juróom-ñaar lu bees lay doon loolu daal moo doon loolu daal Mbacke moo doon kaddu yi nga xamante kaddu yi nga xamante président waxoon na président Macky Sall waxoon na ni naar ko jottali su ñëwee nañ na ko jottali Mamadou Gueye nii sax taxaw Mamadou Gueye nañ ko un milliard nee na démb nañ ko un milliard mu nga xamante ni tàmbali naa indi ay machine am nee nga xam ne tàmbali naa indi ay machine nabi di sant di gërëm di sant bu baax di gërëm allahumma salli ala allahumma salli na rafet na leer na am nañ ci mbégte mu ne am na ci bu baax a baax ci kàddu yi mu ne dolli na yaakaar itam bu baax a baax ci taxawaay bi dégg na ni ko waxee lépp mu ne dégg na ni nga ko ni nga ko mu ne dégg na ko. dégg nañ ko bu a baax. nee na dégg na ko bu baax a baax. wax dëgg nañ ci mbégte mu rëy nag. nee na am na ci mbégte mu rëy nag. ndax yitte ji ak taxawaay bi. ndax yitte ji ngeen ci def ak taxawaay bi. suñu ko sedd na bu baax a baax. nee na xolam sedd na bu baax a baax. nee na yaakaaram itam dolli ko na bu a baax. nee na mi ngi sant cant gu rëy a gi ci war rek. gi ci war rek. doy naa fi mu toll nii. na mbir mi daa doy waar fi mu toll. Mm, wax dëgg yàlla waaye nag sant yàlla rek ci war. waaye nag sant yàlla rek ci war. mi ngi jóge ci suñu borom. ah nee na lu mu a doon rek suñu borom la jógee. te suñu borom yàquwul. te suñu borom juumut. lu mu def rek. lu mu def rek ak defar la. kon nan dalal suñu xel nan dalal suñu xel. na nan dalal suñu xel bu baax. santal ñu président bu baax. nee na ngeen santal ko président bu baax. Fatabaarakallah xam na yéene yi. nee xam na yéeneem. yitte ji xam na yitteem xam na taxawaayam nee na gis na ko bu baax a baax yàlla dara mënu ko mënu yitte mënu ko weesu nee na yitte mënu ko kon mi ngi koy sant di ko gërëm bu baax a baax nee na jërë ngeen jëf loolu rek ne yéen ñi nga xam ne yéen la président yónni itam mi leen baral seen cant ak seen ngërëm ndax nee na jotal ngeen yónente bi bu baax leeral ngeen ko itam feeñal ngeen ci seen yéene bopp itam nee na xam na ko bu baax a baax jërëjëf